sans hésite avec le calife général Serigne que c'est le Hadj Mansour mhm. maa koy nuyu sax mhm. euh mom diko ziyara soxna xam nga euh, mbir su Cheikh Hadj Mali, mi woté won xam nga sax ñun ñi ngi parce que li a ci kilifa moy say wax di am contradiction na non nga koy ci mhm. di di di di di di دي ام اختلاف مانام شي الحاج مالي مي ووتو غاموغي بي مي ووتو غاموغي دافني الا عظموا ليلا ليل الولاده حسبه اذا لم يكن نحو الحرام عدول الا واوي عظموا ليلا نيولين نجن ماغال سي غودي كيوننتي فيت ناك جينغول جيم سي لو حرام سوخنا سي ووتو دافا ام لو باري لو سي اديو لو نيت ني خاموت du man damay yow man rek tey su ma demoon euh, ni dama bëgg euh, gàmmoo ci sama koñ. Mm-hmm. wala dama bëgg euh, benn manifestation ci mbedd mi. Mm-hmm. police li may njëkk a wax mooy responsabilité bu ci am ci ku dam mbaa ku dee wala ku am problème ci sa ci man lay aju. Mm-hmm. ma sa yàlla mag ñi nag comprendre woon nan loolu xam nga fi àddina bi toll épidémie bii di mbas mi toll fii képp ku woote. woote ba xëy na nag yaa xam illa li tax nga woote loolu yow lay engage waaye li wér mooy ci diine ku ni wootewuma rek kooku soo di nit sax war nga ko waat pour plusieurs raisons bi ci njëkk mooy est-ce que xam nga ni nit su demee ci daje jëlee fa pandémie mi ñibbi def ay weer mu dee ca rek sa responsabilité la waaye te bakkan nag kenn mënul lay mu loroo ci sa loxo nga amal ko lay ci diine te fekk mënoon nga ko bàyyi loolu nag sëriñ bi xam na ko beneen bi ci topp mooy man xam naa ni ci xadara malikiya kër Cheikh Alxaaji Malik ci seen xam-xam ci zaahir ak ci baatin loo xam ni xam na lu nit ñi xamut xam nga léeg sax nga dégg ku naan bàyyi na nangam bàyyi na ñoom ajuwuñ ci état moo tëj wala moo bàyyi wala moo jàpp ñi ngi aju ci argument yi leen alquran ak sunna tegal pour ñu tegu ci teg ci nit ñi ñoom nag alhamdulillah ñu ko comprendre lan parce que man Tiwaawan laa juddoo fa laa màgge xam naa Tiwaawan seen xam-xam seen xikma seen wilaaya ak seen doxalin ni muy tegoo ci alquran ak sunna sëriñ bi li mu wax ni man li ma jàpp sax moy fi ak fukki fan ak juróom di nga deg lo xamni di nga ni li dal motax nangam parce que ñom tam yàlla may na len almul haqiqa xamna nu tam kashf moy lan moy ki nga xamni bala mu meuna gis nga tëj néeg bi muy gis la ci gannaaw néeg bi kon ñi ngi ziyara khalifa bi ziyara hadra malikiy bi yeb di wax ni kep ko xamni euh hadra malikiy ñorna la da nga wara ànd totalement ak ñoom sans discussion sans hésite sans leneen xam nga ñun li ñuy yàqal mooy benn nit dafa ñëw nga baal ma rekk mu bañ nekk orsige mm-hmm. di ma réclamer boppam mm-hmm. ni ma dafa bari ay problème lim yu bari ni ma ci këram ci sëyam ci liggéeyukaayam wax moom jeex ma ni ko mbaam mosoo ŋàññi nitu yàlla ni tekk ni ma comme ma ni ko mbaam mosoo teg ci deru nitu yàlla dara mu ni ma ah déedéet ma ni ko demal nga xalaat ci gis nga nitu yàlla su defee dara walla mu wax gis nga nga nga nga am ci sa jàngatu bopp boo xam ne danga ko def rek ngir daf la neex walla diingat wallahi sa àddina dafay yàqu ni sa àddina yàqoo noonu la sa àllaaxira di yàqu ndax inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanoon kon nag yàlla nanu yàlla muccal musal nu ba bu nu am baati ginnaaw ci seen kaw bu nu am baa ci suuf ci seen kaw bu nu am gis-gis boo xam ni teguwul ci dara lu may li mu wax neexuma rek damay jël leneen kon mu mhm. ne ayaadu billaa ñu ngi ciy mus mm. oustaz nañ ci cappaandaw ga ñu mhm. lay ñaanal rek mu mhm. fekkee am nga der ñaan leneen loo ci yokk waa xanaa jaajëfal la soxnaawa jaajëfal tam cheikh mi nga xam ni bi euh, ngi ci caméra bi ndax ñun ñooy nekk xam nañ leen ci Pastef ak bëgg li ngeen di def ak di ko teg ci yoon kon di jaajëfal tam groupe Futurs Médias yëpp di leen wax ne rek ak diinul xaq duñ ko ñàkk incha allah tous les vendredis ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di wax ma axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa